salaam mbokk yi safin TV may bëgg ñëpp di saa ñëpp di ñëw gën coco ak tërëm gën a fës journée bi tombé le vendredi septembre dañ ko commencé foofu sa Turquie officiel na Victor Osimhen signé na ak Galatasaray waa Napoli ñoo leen ko abal pour benn beneen jour bi nga xam ne Galatasaray bëgg nañ koo signé mooy jour Manchester United bi di Casemiro kon euh, mercato bi foofu sa Turquie mi ngi dem wala septembre te bëgg nañoo doomu Sénégal bi di Pape Alioune Ndiaye signé na ak club bi di Gaziantep foofu sa championnat turc jour bu libre la woon nekkul ci benn contrat. doomu Côte bi di Max Alain Gradel signé na club bi di Ahmed Eska. léegi officiel na match umal ci bi jour bu libre la woon na contrat am ak keneen ku signé mooy Jordan Verretou jóge na Marseille dama signé ak Lyon mercato bi tëj na foofu sa championnat France waaye Al Nassr dañoo bëgg a signé di Adrien Rabiot bi nga xam ne depuis mu Juventus joueur bu libre la fu mu ñu ngi woyal ay waxtaan ak ay jegeñaaleem ngir xool nañ koo signé Memphis Depay bi nga xam ne moom tamit bu libre la depuis mu jógee Atlético club bi di Corinthians foofu championnat Brésil ñoo ko bëgg a signé Azzedine Ounahi jóge na Olympique de Marseille ñu abale ko ci club bi di Panathinaikos officiel Juan Mata bi nga xam ne Mauricio Pochettino mooy doon di entraîneur équipe nationale bu États-Unis kon na fekk lu yàggul la dara dina signé contrat am ñu ak suñu gaynde yi tey jii war na jàkkaarloo ak Burkina Faso muy match bu njëkk pour qualification Coupe d'Afrique bu war a sa Maroc si 2025 mi ngi war dalal Burkina Faso su 19h jotee foofu la jëmale xibaar yi di leen jox di gaje bi leen seeni di leen remercier te activer notification pour jot information